Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma fate un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Ragazzi, prima di tutto vi chiedo scusa perché siamo rimasti praticamente un mese senza aggiornarvi dovuta a impegni col lavoro. Purtroppo dobbiamo saltare una settimana, due settimane per poter aggiornarvi perché siamo molto impegnati col lavoro. Avrei voluto ragazzi, avrei voluto sempre stare qui ad aggiornarvi, a darvi le ultime novità, ma purtroppo questi periodi sono molto impegnato col lavoro, ma cercherò sempre di starvi vicino, di darvi novità e di, e, e di darvi anche le ultime aggiornamenti in merito ai decreti Covid, aiuti, ma anche agli ultimi novità che accade qui in Italia. Oggi parleremo di diverse cose nell'ambito dei decreti aiuti, ma anche dei sostegni per le famiglie, per le imprese. Ma prima di tutto faccio un auguro di buon anno 2022 a tutti quanti. Vi auguro un buon anno di 2022 a tutti quanti, a tutta la comunità senegalese, africana, a tutta la diaspora. E spero che 2022 sia l'anno di pace, di lavoro, di serenità, ma anche di ripresa per l'economia italiana e spero anche che nel 2022 il Covid, ma anche tutte queste varianti, vanno via per sempre dell'Italia e che sia, possiamo ritrovare la serenità, la pace, ma anche il, il, il rilancio che avevamo conosciuto dall'Italia. Vi chiedo scusa e cercheremo ad aggiornarvi oggi su tanti punti. Eh, prima di tutto ragazzi c'è un breaking news, come si dice in inglese, l'ultima novità L'ultima novità col governo Draghi è che il governo sta preparando un altro decreto ristori, come ha fatto sempre, per aiutare le famiglie, le, famiglie, le imprese, ma anche i lavoratori danneggiati. Quindi parleremo di un altro decreto ristori che il governo sta varando. Quindi possiamo dire spunta all'orizzonte un altro decreto ristori, come abbiamo sempre conosciuto, un decreto che aiuta i lavoratori stagionali, prima di tutto intermittenti caricati alle vendite porta a porta, quindi i lavoratori occasionali, ma anche si, si, potrebbe essere anche la proroga del REM, del, la proroga pure anche della cassa di integrazione, ma anche dei bonus fondo perduto. Oggi cercheremo a chiarire tutto questo su queste video. Sono tante novità pure anche in merito ai lavoratori agricoli, la NASPI secondo la legge di bilancio 2022, ma anche delle novità sul reddito di cittadinanza e l'assegno unico figli che avete visto che è in vigore dal 1 di gennaio 2022. Cercheremo a darvi novità su di tutto. salaamaaleykum maa leen di nuyu bu baax a di leen ziar yéen ñi nekk Italie ak li wër man la seen mbokk taalibe Mortala Sarr di jéggulu nag xaw naa toog temps boo xamante bi waroon naa leen donc jox les dernières informations mais ko ak liggéey bi ak tamit euh, donc euh, temps du am motax à chaque fois rek suma ko mëné rek dina donc euh, chercher di len ajourner yeen ñëpp ci li nga xamanteni bi mom la len doon tamal di len ko defal fi Italie di jéglu bu baax baax di leen ñaanal atum jàmm atum wér yaram ak liggéey ak ñëpp am jàmm te liggéey am ci dëkk bi ba feebar bi jeex ak jàmm ba dëkk bi mën a démarré waat alors fi ñuy njëkke nag dañuy njëkke ci assaignes unicophile yi xam ngeen ne mooy l' assaignes unicophile universale era un provvedimento del ministro della famiglia e delle pari opportunità ñukoy wax euh, Elena Bonetti te bokkon ci gouvernement Conte te gouvernement bi daanu patay mu ñewat nek même ministre yor même portefeuille bi ci gouvernement Draghi donc mesure boobu ñu leen doon wax na mooy assegno unico figli ak carico donc nek na en vigueur depuis le 1er janvier 2022 donc su duggal na plateforme bi ku bëgg def demande yi man nga dem nga def demande yi bu fekkee am nga ay fili in carico fii Italie donc ta nga nekk Italie man nga ko def donc asaño boobu waxoon nañ leen donc day abrogé bépp asaño bu mu fekkoon jëm ci yenn ci détraction fiscale yi bonus bébé Mamadi Domani ak ANF prix asaño prix nucléo familiale donc IMS génn na benn circulaire leeral donc euh, pratiquement hypothèse yi ci am yépp ak euh, nan lañ ko mën a dugale ak euh, yan famille ñoo ko mën a dugal ak lan ak lan lañ ci laaj muy réquisites yi donc réquisites yi wax nañ leen ko d'abord bi ci njëkk mooy il faut nga am résidence en Italie fii am ay filii in carico donc tamit nga am IGE boo xamante ni donc IGE buñ ajourné la ñu fàttale ne assainir uni ko affili ñuy jël reddito di cittadinanza jërut ñuy def demande bi ñoom dañ leen koy ajourné direct ci seen RDC donc ñoom enquête bu ñu amee ay fili in carico donc duñ def demande bi ñi def demande bi mooy comme ni leen ko waxee ñi nga xamante ni am ñu ay fili in carico te donc amuñu reddito di cittadinanza euh, enquête ñu nekk enquête ay laboratoire autonome mën nañ ko tamit euh, dugal alors hypothèse bi ci njëkk moom mooy ne réquisites yi d'abord euh, moom mooy ne alors ñetti hypothèse la la la la la IMS génn hypothèse bu njëkk bi mooy demande bi mën nañ koo def seen sa IGE wala IGE boo xamante ni bi dafa supérieur quarante mille euros comme ni ko lejja bi waxee mais bu boobaa yow comme article 4 del DL 230 li mu prévoir ci assainio bi mooy bu fekkente ni bii donc bu fekkente ni bii yow demande bi def nga ko ak IGE bu supérieur quarante mille euros wala seen sa IGE donc dinañ la fay mais euh, minimum bi ngay am minimum bi mooy cinquante euro importo a figlio ciascuno fili minorenne ak vingt cinq euro fili majorenne donc loolu mooy décret bi comme ni mu ñëwee donc ci ci ci ci ci ci article bi mën nga def demande bi seen sa ISE wala sa ISE bu ëppee 40 000 euros mën nga ko def mais paiement minimum bi ngay am deuxième hypothèse bi mooy bu fekkente ne bi yow muy def demande bi ISE bi yaa ngi ko présenté entro il 30 di giugno 2022 donc te IG bi donc euh, passé wut quinze mille euros donc euh, yow bu boobaa dinañ la mën a fay assegno unico boobu noonu fii fino cento settantacinque euro ciascun figlio ba pare boole ci arretrati yi ci commencé ci bi décret bi commencé woon maanaam muy weeru mars ba ba li ci topp donc bu fekkee tamit troisième hypothèse bi sa IG da nga koo présenté ci à partir du premier juillet 2000 22 donc yow bu boobaa tamit comme ni ko décret bi waxee rek alors dinañ la fay assegno boobu noonu selon ñu basé wu ci sa use importe bi ni mu toll moom la ñuy calculer fay la assegno bi mais arretraté yi doo ko mën a am pour quoi parce que donc demande bi da nga ko présenté da nga ko yéex a présenté loolu da IMS leeral ci donc assegno unico fil yi donc euh, loolu xam ngeen ne donc euh, mesure la boo xamante ni dafa waroon nekk en te nekk na en vigueur te wax nañ leen ko bu nekkee en vigueur donc asuñu bare bari yi fi jaaroon donc daf koy daf koy donc lii yëpp IMS mi ngi ko leeral ci benn circulaire boo xamante ne bi mi ngi ko duppee circulaire 47 48 bi génnoon donc le 31 décembre bi passé donc demande yi commencé ñu assaini unico-filio képp koo xamante ni bi donc am nga réquisites yi demande wala sa carte wala donc wala nga dem ci CAF wala patronato yi ñu wax ne depuis le premier janvier mi ngi en vigueur te waxoon nañ leen ne Assogno buy donc éliminer la éliminer yeneen yi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo fi jotoon a am. alors ci loolu sax ñu xam le ne IMSS xam le ne ne à partir du premier janvier 2022 rek alors am na yoo xamante ni bi ñoom dèjà dañuy disparaître lu mel ni Mamad Mamadi Domani bi nga xamante ni 800 euros la woon dañ ko doon fay ñi nga xamante ni donc dañoo nekkoon en état war a am doom donc bonus boobu day disparaître duutul am ndax Assogno daf koy abrogé. Euh, bu ñu demee ba mars deux mille vingt deux donc dinañ prolonger fii ba mars deux mille vingt deux assegno temporaneo bi nga xamante ni moo ngi fi woon ak ANF yi per perfil yi Majorene dinañ ko prolonger ba mars deux mille vingt deux di ko fay. Euh, bonus terzo filio tamit dinañ ko fay janvier février mais foofu lay yem. donc bu ko defee yooyu yëpp dañ leen di abrogé donc enseignement bi nag laal daal di dugg nekk benn enseignement unique universel per touti ñu wax ne sax euh, bonus terzo filio boobu noonu donc am na ay paiements yu ñuy xaar euh, entre ci datu le 13 ak le 19 janvier am na ay paiements comme ni ko IMS leerale alors loolu mbok yi moo gënoon a fës ci assegno unico bi xam ngeen ne donc mesure bu ñëpp doon xaar la mu wara a universale donc dina abrogé yenn ci assegno yu fi amone amna ci yo xamanteni comme ni ñu ko waxee ci biir vidéo bi donc dina dem fi ba mars bu fa égué donc dootul exister boba assegno unico bi rek mo fi nekk ta réquisite fondamental bo xam ne leen ko mom moy IGE bu ajorné wu mën nga def demande bi seen sa IGE mais bu boobaa fay gi donc du wara toll ni mu wara tollal wala bu fekke IGE bi donc da ko présenter présenter intro il trento donc di juuñu donc euh, ba y a des maximum donc euh, nek 000 euros donc bu boobaa tamit man nga am donc selon paiement donc bu fekkente ne bi tamit yow da nga présenter demande bi à partir du 1er juillet 2022 bu boobaa tamit dinañ la fay selon sa IG ni ko présenté ni mu toll mais tamit bu boobaa yow arrêt traité yi doo ko mën a am loolu la loolu la loi ñu ñaan mbokk yi koo xamante donc da nga am filin kari fii in Italia donc mën nga dem nga présenter demande assegno unico-fili ñu fàttali ne anche lavoratori autonomi ci lañ bokk donc ñoom mën nañoo présenter demande bi ñi nga xamante ni dañuy jël RDC yi wax nañ leen ko jërëb ñuy présenter demande donc dinañ am paiement boobu automatiquement compte IMSI dina len ko fay bu len di chargel RDC alors donc ñu wax ci un nouveau décret to restore yi Enquedoué parce que xam ngeen ne jamono ji passé ñi ñu ngi discuter né amna ci nataale yi ay activités yi ñu tëjoon jëm ci discothèque yi ak donc euh, local yi ak lu melni donc yenn ci albergo yi ci nataale yi dañ leen a alors gouvernement bi moo ngi waajal décret boo xamante ni bi donc catégorie googu ci ñoom la koy jiital jëm ci activité yi ñu tëjoon pour donc euh, indemniser leen beneen décret bi nga xamante ni rek moom moom mooy gën a important mooy décret bi fi daan am yépp te mbokki taalibe yi doon ko xaar ñu koy woowe donc ristori euh, prestazionali intermittenti incaricati alle vendite porta a porta donc euh, partita IVA yi fondo perduto ak donc lavoratore donc occasionale comme ni mu fi doon amee ak euh, proroga rem wala tamit euh, proroga naspi wala ñu duggal ko ci euh, il rem naspizato ak donc la proroga de la covid casse covid bi nga xamante ni jeexoon na le 31 décembre bi passé ginnaaw bi donc état d'urgence bi jeexal te njokkaat ko ba mars 2022 donc décret bobu xam nga ne fan yépp ñu ngi ci discuter kii di Antonio Conte te nekkoon fi donc ex premier moom ci feetu nataal yi rek moo ngi moo ngi doon wax ne mi ngi ñaan gouvernement bi lu mu gën a gaaw mu def scostamento di bilancio déficit budgétaire ñu génn xaalis boo xamante ni dañuy gaaw financer décret bobu pour donc mën a jàppale yenn ci catégorie liggéeykat yooyu nga xamante ni depuis lors donc soxla dañu dimbal donc moo nekkoon décret yi fi doon am rek restauré yi fi doon am te nga xamante ne bi mi ngi gënoon a basé wu ci laboratoire saisonniers yi intermittente yi ak wax nañ leen ko donc ku nekk état rek xam nga ko donc gouvernement bi ñu ngi ci liggéey jàpp nañ ne semaine bii di ñëw premier décret bi pour discothèque yi ak donc euh, local yi ak euh, albergo yi donc dinañ ko voté donc euh, ci biir janvier wala maximum février décret touristique per stagionale yi ak proroga rem ak ni mu fi daan amee rek donc ñu ngi xaar beneen deuxième décret boo xamante ni gouverneur Draghi donc dina ko dina ko approuvé pour mën a donc dimbale catégorie liggéeykat yooyu noonu donc wax nañ leen donc li ci li ci aaju donc ñenn ci politiciens yi sax ñu ngi naan jërut déficit budgétaire maanaam jërut ñuy voté ci Sénat bi wala assemblée scostamento di bilancio donc programme bi ñëwee donc il recovery fund Italie war koo jot ci union européenne mu toll ci xaalis bu bëree bëri donc dèjà rek mën na financer décret yooyu jërut ñuy donc defu Euh, scostamento di bilancio donc xam ngeen ne recovery fund moom la Italie moom la ñu wooyee fii il PNRR donc il piano national de reprise et de résilience. donc xaalis le boo xamante ne Union européenne moo alloué Italie ginnaaw bi nga xamante l'Union Union européenne prolongé woon donc euh, Covid yi tout Covid yi ba 2021 jëm ci euh, dëkk yi nga xamante donc dañ ko yittewoo ta xam ngeen ci la donc euh, pour l'instant euh, gouvernement bi situation bi critiqué donc dinañ ñëwaat euh, en aide laboratoire famille ak imprese yi jëm ci proroga rem bi ak bonus ak les perdute donc ñu jàpp ne loolu nouvelle bu neex la ñu wax donc am yeneen donc ci 2022 pour donc taxawaat yi comme ni fi alors nous avons des désoccupation agricole qui ngi concerné donc laboratoire agricole Nous avons la du bilan ci indi ay solo donc euh, bu avons des ci texte bi des occupations agricole moo ngi agricole contrat à temps déterminé. donc euh, nous à partir du 10 janvier 2022 nous avons présenter des agricole agricoles 31 mars 2022 mën nañ ko présenter 10 janvier ba 31 mars mën nañoo présenter donc désoccupation agricole boobu réquisites yi moom mooy il faut euh, nga am contrat déterminato ci secteur agricole nga am aussi inscription ay elenchi nominativi yi dei lavoratori e dipendenti agricoli del settore agricolo 2021 loolu ñu nekk ci secteur agricole bi xam nañ ko ak tamit nga am ancien état di doué ani maanaam nga am doué ani yoo xamante ci ginnaaw donc liggéey nga ko versé ko ko contributi ak 102 jours yoo xamante ni bi effectif la am nga ko ci 2020 bi ak 2021 boo amee loolu rek di nga mën a def désoccupation agricole yow mi nekk opérateur agricole te nekk fii Italie donc tailleur contrat déterminé beneen possibilité tamit bu ñëw ci la jëndi bilancier bi jëm ba tey ci laboratoire agricole yi mooy bu ñu def demande boobu di désoccupation agricole bu fekkee am nañu réquisites yi mën nañoo présenter waale aussi li ñu woowe donc demande désoccupation bu ñu def demande d'occupation agricole bi mën nañoo présenter wala am en plus donc euh, lii ñuy woowee donc ANF donc assegno per l'unico familiare bu fekkee euh, donc doon nañ ko am te seen njaboot nekk fi mën nañ ko présenter wala bu ñuy def donc désoccupation agricole te bu boobaa tamit IMSS dina leen ko dina leen ko fay comme ñu ñëwee ci dëkk bi ci ci ci bi. alors geneen catégorie gi mooy laboratoire agricole yi nga xamante ni bi donc dañuy yor li ñuy wooye donc euh, contrato déterminato indéterminato ñooñ tamit mën nañoo dugal disoccupazione agricole ñëw na ci la legge di bilancio bi bu fekkente ni bi seen disoccupato alors mi ngi am ci entro il 31 di dicembre 2021 mën nañoo dugal donc euh, disoccupato boobu noonu am même bu ñu contrat indéterminé mais bu fekkee nag dafa passé loolu maanaam commencé ci le 1er janvier 2022 jëm kaw bu boobaa bu boobaa ñoom Hmm, secteur agricole da nga yor contrat indéterminé doo mën a dugal donc désoccupado agricole mais di nga mën a dugal nas bi loolu nouveauté bu bees la bu ñëw ci la legge di bilancionnel 2022 donc opéra agricole à tempo indéterminato euh, boo amee réquisites yi mën nga dugal donc euh, des occupations agricoles ou la NASPI, comme nous l'avons fait dans la vidéo. Donc, si vous avez des il faut que vous 3 17 semaines de lavoro. Donc, c'est un réquisite qui NASPI, la nouvelle sous-correction pour l'impiego. Alors, si vous avez des il faut que 3 17 semaines dans les ultimes 4 années qui précèdent la désoccupation. Il faut 4 ans, il faut que vous donc 3 17 semaines pour que vous puissiez vous désoccuper de NASPI. Euh, beneen nouveauté bu ñëw ci ledjiti bilanche bi bokk na ci li ñuy wooye donc nas bi ba tey indi nañ ci ay soppite mooy ne léegi 30 jours effectifs yi ñu doon laaj ne ultime doo di cimees yi euh, prima della disoccupazione donc laajatuñ ko abrogé nañ ko donc léegi très difficilement rek taal yo bi nga xamante ni aussi doon doon na ci am di très percento nga xam ne donc boo commencé dugg ci quatrième mese bi rek dañ la koy dagg taal yo boobu xam ne ne ne donc amatut donc am na sax mais dañ ko simplifier donc dina dem de 6 à huitième mois booy dugg ci six ba huitième mois ginnaaw bi nga nekkee désoccupato ci ci ci weer yi nga koy jël talio boobu noonu dina présenté wu donc day varier nag ça dépend ci nit ki at at yi mu am pour di ko dugal donc euh, ci la ñuy sukkandiku pour donc euh, euh, donc imposer ko talio boobu nga xamante ni léegi sixième mois lay commencé ba huitième mois ginnaaw bi nga nekkee désoccupato donc chiffre bi du boo duggee ci donc ci mois yooyu rek lay wàññeeku loolu ay nouveauté loo xamante ni donc dafa ñëw ci laale ji di bilanso donc ñu doon fàttali mbokki taalibe yi beneen nouveauté bu ñëw ci laale ji di bilanso te ñu war cee IMS war cee indi ay leeral mooy bonus 1000 euros bu ñuy woowee tantum 1000 euros per i laboratoire fragile donc laboratoire fragile nag peut-être IMS dina génne benn circulaire pour leeral donc xeetu laboratoire yi nga xamante ñoom la ñu woowee donc laboratoire fragile yi nga xamante ne bi ci 2021 bi donc jotuñu woon a présenté ci seen logo di Lavoro ndax peut-être Covid bi euh, am nañ plus de 30 jours yoo xamante ni absenté nañ ko ci seen logo di Lavoro ndax Covid bi donc ñooñu nga xam ne donc dañuy dañuy accéder donc limite yi maximum di malatia dinañ mën a donc euh, dugal bonus boobu ñuy woowee donc bonus millero tantum per i lavoratori fragili donc euh, IMS la ñuy xaar ci benn circulaire donc mu génn ci ay leeral xam ne ñu xam laboratoire yooyu ñan lañ bu ko defee tamit ñu mën koo leeral donc euh, mbokki taalibe yi alors leneen li nga xamante ni tamit bëgg nañ koo leeral ba tey euh, moom mooy fond de pertude yi nga xamante ni moom lañ mujjee dugal fii Italie mbokki taalibe yi dugal ko dafa xaw a tagga tembe mooy préquativo bi donc euh, xaw na yéexe ci l'agence da lay intraté donc ba tey paiement yi nekkagut en officiel ñàkkut am na ñuy jot mooy secteur yu gën a mag yee mag mais ñi nga xamante ni piccolo et média imprese ñu bëree bëri defoon demande jotaguñu ñuy xam ne loolu donc tardement la ci l'agence da lay donc heure bu amee novita rek ñëw donc ajournel ko mbokki taalibe yi donc leneen li nga xamante ni bi tamit bëggoon nañ koo leeral mbokki taalibe yi mooy donc décreto yi beneen bu bees boo xamante ni wax nañ leen ko gouverneur Draghi moo ngi koy waajal ci weer yi di ñëw intro ci gennaio bi wala donc inizio aprile mu nekk décret boo xamante ni ristori lay doon pour stagionale yi intermittente yi incaricate yi all'evendita comme ni mu fi doon amee rek te ñu ngi ci njort ba tey tamit euh, euh, proroga rem ñi nga xamante ni doon nañ jël rem bi te mun ñu woon a am accès ci reddito di cittadinanza donc dinañ ci bokk euh, proroga NASPI wala rem NASPIZzato wala tamit li ñuy wooye donc la cassa covid donc dinañ ko ci dugal ñu xam ne rek donc loolu moo gënoon a mbokk yi ci donc vidéo yi ñu doon baaxee tey ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf